mi nga xamante moo fi représentant xalifa général de Mouride ah sëriñ Abdou Lahad Mbacke ku ne xam na ne moo fi moom la fi Cheikh Mamadou Mountakha teg bi fi Baye Ndiaga Fall jógee muy wër kilifa yi nag di nuyonte ak ñoom di siyaarante ak ñoom tey jii nag mu ñëwoon Tëngéej ànd ak sëñ Modou Mbacke Guèye ñu ñëw ci préfet bi nga xamante ni moo fi moo nekk fii ci Tëngéej nekkal fi administration bi yëpp ñaar nag délégation bu am solo. Euh, ci njital délégation bi moy serigne Abdou Lahad Mbacke ak serigne Mbacke Mbey euh, ak Cheikh Abdou Mbacke ak serigne Abdou Karim Bousso ak magi Bambilor yëpp ku ci mel ne Baye Ousseynou Gueye ak serigne Modou Diop ak serigne goro Khoule ak mbollem daayira istikhama yëpp waye dañ fee téwal tamit mbollem ñi nga xamanteni ño ay talibé la ta nek ci tundu commune Bambilor yëpp may wax ci sen kaddu nak di len xamal ne ah tànk yi la yo xamanteni sëriñ bi dafa am ndigal ci Cheikh Mamadou Mountakha mboolem kuy kilifa fii ci tund wi mu dem fa waxtaan ak moom ñëpp xam ni moom mii mooy ki nga xamante ni moom la fi Cheikh Mamadou Mountakha teg mu nekk fi représentant xalifa général de Mouride ñu ñëwoon tey ci préfecture bi. ah bi ñëwee nag préfet dalal nañu ah wax dëgg yàlla wax ak ñoom kàddu yu am solo kàddu yu rafet wax ay jaar-jaaram rafetlu tamit taxawaay bi nga xamante ni moom la yoonu Mouride. taxaw fii ci euh, commune euh, Tëngéej bi yëpp jaar ko ci sëñ Cheikh Mbacke Guèye mii sëñ Modou Mbacke géey mii ak euh, li nga xamante ni commune Tëngéej bi yëpp ëmb na ko rawatina commune Bambilor ah bokk jullit yi bokk taalib yi ñu xam ne nag képp ku sëriñ Touba jiital daf laa liggéey loo Cheikh Blad nag damaa yaakaar na dafa fas yéene roy turandoom ba muy Cheikh Abdoulaye Lahat fas yéene nag soobu ci liggéey bi képp koo xamante ni euh, sëñ Touba ñor na la wala nga gëm sëñ Touba si Abdoulaye tàllal na la loxo fas yéene ànd ak yow ci liggéeyam sëriñ Touba bii fi nga xamante ni fi la ko fekkoon ñuy ñaanal sëriñ Jaga Fall bu baax yàlla yokk yërmandeem euh, yokk ko ay leer euh, fas yéene fi mu yemoon daal ci ab liggéey mu tàmbalee fa te fas yéene yóbbu ko foo xamante ni fu kenn foogul la ñuy woo bokk yëpp nag ci bennoo te ànd nekk benn boole xol yi di yëkkateendoo fas yéene tamit di déglu ndigal ndax kat sëriñ Tuubaa nee na al muridu euh, laa tafaloo sayen bi xëy bi xayri isni fal isni sartun bi xaabulu soxni kon nag ki nga xamante mooy Cheikh Abdoul Ahad moom la moo am ndigal ci Cheikh Mamadou Mountakha ngir mu représenté xalif général de Mouride kon ñu fas yéene wéy ci ndigalam fas yéene wax ci ay kàddoom beneen bi ci topp ànd bi nga xam ne moom la mu fas yéene ànd ak moom tamit la sëñ tubaa woote woon rek ci lañ fa yéene jëm ndax sañ tubaa kat nee woon al muridu laa yuridu abada xayru rida rahmaani ay soxasada ànd gi ñu ànd ak moom kat wutuñ ci lenn lu fas ci yéene sàkku ngërëmal sañ tubaa rek ak jëmmal kàddug sëriñ Touba gi ak taxawu ci bu wér a wér a fas yéene tamit tàllal loxo taalibi yëpp ñu fas yéene ànd nekk benn fas yéene liggéeyal sañ Touba loolu daal mu gudd mu gàtt loolu mooy kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.